El Hadj Assane Gueye lañ ci àndal. yéenekaay yi bokk na ci li ñu waxtaanee tey opposition bi bëggoon amal mbootaay gu yaatu ngir dal ci kaw président Sall ak ñoom ci local yi ñu dëgmal faf nag boobépp opposition xaajaloo dal seen kaw observateur xëy di jàngat ak gëstu yooyee xat-xat dab opposition bi ci wàllug bennoo yéenekaay bi ne tey la ñuy war a lancer boobu coalition waaye PDS dand na ca mu mel ni taxawu Sénégal bu Khalifa Sall Pastef bu Ousmane Sonko ak PUR bu Serigne Moustapha Sy ñoo nar a gàddu boobépp coalition journaliste analyste bi di Babacar opposition bi ñom bëggunu local yi ñu dëgmal ci local kessé ab référendum lañ ko bëgg a soppar ñi li ñu bëgg moy fexé ba li nga xamanteni moy jongante mu doon jam-jam bu mujj ba ci président Sall mu des nak bu ñu ba waxi di investiture yi coalition ndax du yomb ci ñom bu ñu ci yeggé PDS mom big ci la ñu ne ci lu ak lam gi signé wuñu benn ngir bok ci coalition PDS ne bala andap am faw ñu yen régler yenn taxawaay yu yi yenn qui yi ak it faral di coalition Pape Diop ak bokk gis-gis observateur xamal ñu ne ñoom Bobe gu ci ànd boobee eh, diblangoo ndax danoo jàpp ne ci sumb yu ya kenn ko ci bokk gis-gis ak la Diop ñoom jàppuñ ne xel la nen yépp ñu di ko ci coalition la ñu proposé opposition bi am ñaar coalition ndax ben kott ñu ne lañ cee ragal investiture yi am ay frustration ba ñeneen ñi génn jaar seen yoonu bopp taxawal seen liste croix ak And Jëf PADS wan nañu ginnaaw coalition bi di lu ñu ci observateur Vox Populi né PDS né nañ bokkuñu ndax lañu japp né ay pexé ci souf ay wiri wiri ak yenen bokk gis-gis ak wa De Croix ñomit naka nonu xalaat biñu am dal moy ñu baña yam ci benn coalition bu yaatu ngir opposition bi waye ñaari coalition ñaari mbotay di pôle yu mak source a ci xibaar mom ni li waral PDS bokkuñu ci yëf yi du leneen lu may lañu bëggoon la leen Ousmane Sonko ak Khalifa Sall nangulul ñom wa PDS maanaam seeni kàngam seeni responsable responsable doon ñi nekk tête de liste ci diwaan yu mag yi waaye yéeni kaay bi ne Ousmane Sonko doxalinu PDS boobee du lu ko bett ndax waxoon na ci njëlbeen Khalifa Sall matul nga ciy sonn ndax gëwma nit ñi daanu bokk ci biir coalition du rek nag opposition bi ñoo am jafe-jafe yi bennoo ndax Sud fa mu gis moom ab réeroo buy ñëw di xeeñ ci local yi le ci biir APR la waral yéeni bi xëy bind APR contre APR ndax njort na ni investiture yi xaajaloo na am seen biir misaal yam ca joxe Ismaïla Madior Fall Oumar Gueye Mansour Faye Mary Teuw Niane Bibi Baldé professeur Moussa Baldé président Macky Sall moom jamonoy yi liggéey la ko jappé lolé la wax ay ministre comme, ci ndajem conseil des ministres Demb di luñu jang ci les échos waxtu liggéey mu ne ci lañ toll liguey bu and ak njariñ ak qualité sakku na ci ñom jëwriñ ñu déggo solidaire sen bir ben nako nonit ñu anticipation ngir jëmmal projet ak président ñu mu gëna a ñaax jëwriñ yoré walu plan orsec gi ngir baral djégo yi génne askan wi ci ndox mi ak jëwriñ yoré walu ndaw ñi Walum xey ngir xayma programme xey ndaw ñi ñetti ginnaaw bi nu ko tàmbalee ci yéenekaay bi di la Soleil it yenn digle yi tukkee ci président Sall jëm ci ministre am démb ca ndajem pale ma nañu déggoo ci liggéey bi di sóoraale liy ñëw ak jiital jëf jëf yu ay gët mën a tegu la ñu nangoo ci FMI na nay ngëneel ci wàllu koom président xamle ne fa nu koy jëmle mooy ci wàllu wér yaram maanaam fexe ba ndëgërlaay gi yokk xeex bit na ko noonu ak coronavirus ak it jàppale njaboot yi doxoy jotul ginnaaw yi la tribune xëy wàllu yoon ak àtteeb ba indi woon accident bu metti ba ca diwaanu Saloum di chauffeuru camion malien tribunal ñeenti ati kaso la ko teg népp bi la tribune wax ci accident Benen métti lool eh, di ci yoonu jurub bi ak fukk ak ñaari nit yu ci observateur xëy dalal ko xereñ ci wàllu lempo amee li jaase ci droit public ak politique économique internationale ñu docteur Hamid Fall nekkoon ni ministre correspondant bu président Wade ci sommet chef d'état yu NEPAD nekk jamono yi conseiller bu directeur général impôt domaine Mom Hamid Fall ci waxtaan wu yaatu ak yéenekaay bi observateur gis code des impôts bi ci boppam la ñu war a raxasaat ba nga payum lempo mi dina gën yaatu ci ñëpp ñi nga xamante ni ñooy ñi mu war ca nag mu ne DGID dinañ jog tey contrôle yoo xamante ni képp koo xam ni war nga fay impôt di nga def lu ni mel sàkku na it ci wàllum lempo ñuy may gët situation fiscale bu milliardaires yi Sénégal yi ndax ñu ngi fay lempom déet ak ndax ñu ngi koy fay ca na mu waree Sénégal ndax na mu waree la daane démb réewum Togo ci wàllu football gi lu ci mën di am daan nanu record ne waaye yëf yi du woon saf ñuy wasinde ci joueur yi yombul woon ci ñoom Aliou Cissé ci yéenekaay bi moom mel ni la ko ci ñor mooy solo gu tàmbalee ndam am ci yooyu xeetu jongante Sud Quotidien mon bolé ci ndamal gaynde basket du Sénégal kay bi ne gaynde football yi daan nanu épervier yi gaynde basket yi warax palankas negras yi di xaar éléphant di ñey Côte d'Ivoire walu lamb amateur yi xaar de Gaye Bombardier sunu lamb nee na Gaston Mbengue japp na app bi 28 novembre 2021 lay doon